Bignona ba Yëmbal jullulu jàpp Ziguinchor ba fii ci kolobaan ba Ndar ba fépp ci biir réew mi Sénégal yëpp yëngu na li ko yëngal nag lu yëngu rek la ko yëngal moom moo ko ëpp doole loolu dane fànn kenn du ko jeex mooy naqar ak tiis boo xamante ni dal na tey ci sunu askan dal na ci li nga xamante ni moom mooy Sénégal Sénégal naqarlu ko Afrique yëpp naqarlu ko àdduna yëpp naqarlu ko moom moo waral ñu yëkkati ay kàddu njaal di ko jébbal képp koo xamante ni sa njaboot daanu na faatu na ci lii nga xamante ni xaw na ci fii nga xamante ni moom mooy senegal naqar ak tiis fees dell xolu wayjur yooyu naqar ak tiis fees fees dell ñoo ñëpp nga xamante ni tey ñàkk nañ ñooñu nga xam ci ñoom lañu bokkoon waaye ñu nga xamante ni ñoom la ñu ñàkk ñun nag ñoom ñëpp ñoo ko bokk bu doon kenn rek la ëpp na rawatina ba ñuy compter ay nombre yoo xamante ni ma ngay tàmbalee bari bakkanu doomu aadama nekk lu foor lool loolu moo tax sunu xol fees sunu xel daal di jaxasoo ba sunu làmmiñ loolu tax mënatuñu koo téye ñu dox ay tànk yu dëgër yu ànd ak pas-pas bu sell ànd ak yitte ju mat sëkk ngir wax ak ñi nga xamante ni ñoom lañu dénk ku baax daf doon wax ne muy Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacké li yées ci kilifa mooy saa bu ñu amee yitte seen xel jël sa njaboot saa bu ñu amee yitte rek seen xel jël la loolu nag dafa mel ni ci lañu egg bu fekkee ne réew mi ñi ñu ko dénk ñoo ngi wéy di amee liñ leen dénk ba tey su fekkee ne ñoom ñoo ñoo ko amee ba tey ñu jóg taxaw taxawaay bu mat sëkk taxawaayu kilifa jot na taxawaay boobu mooy lan mooy wax ak nit ñi li may laaj mooy ndax dégg ngeen message bi nga xamante ni moom lañ leen yónnee ndax dégg nañ li nga xamante ni moom la askan wi wax ndax dégg nañ ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi bàyyi ko ndax dégg nañ ñi nga xamante ni ñoom ñoo jógoon itte ak fexe ngir ñu dégg leen tax ñu ñàkk seen bakkan wuy ji seen borom tey message boobu mooy justice na dellu si damay faral di wax ne la paix c'est pas l'absence de guerre c'est l'absence de paix c'est l'absence de justice c'est l'absence d'équité sociale injustice baaxul lu ne mën na ko jur loolu moo tax ñuy fàttali bu fekk fàttali mën naa jëriñ ki nga xamante ni dénk nañu ko wala ñi nga xamante ni dénk nañu leen te booba ba tey li ñu fi dégg dalagul xel ki ñuy xaar mu wax waxagul dégguñu ko xamuñu lu tax waxul ñamu yónnee ñam mu yónni ñu wax nekkaguñu à la hauteur des enjeux dafa mel ni dégguñu li nga xamante ni moom la leen askan wi yónnee ci message askan woowu li ñu wax mooy lan mooy besoin de justice askan woowu li ñu wax mooy lan mooy ñi nga xamante ni tey jii làq nañ leen jant bi téye leen te kenn attewu leen loolu xel mënu ko nangu xelaat mënu ko nangu ñooñu tey jii defuñu dara dara fa nga xamante ni foofu lañ leen téye taqale leen ak seen njaboot taqale leen ak ñi nga xamante ni ñoom la ñu bëgg. ba loolu tax am na ci ñoo xamante ni tey toog ci seen kër dara jarul luñ leen ko tax dañoo foog ne ñàkk ngor lay doon dañoo foog ne ñàkk itte lay nekk ci jàpp ne ñañu xamante ni ñoom la ñu téye tey teg leen loxo ñooñu dañ doon sonn ngir ñoom ñu am taw féex ba incarné li nga xamante ni moom mooy seen espoir ñooñu tey jii ñoom la euh, caabi féete ginnaaw ñu téye leen te xamuñu lu tax ñu téye leen. donc loolu yëpp besoin de justice la boo xamante ni tey askan bi yittewoon nañu ko te loolu la ndaw ñi wax ndaw ñi ko wax nag mooy ndaw ñi nga xamante ni ñu ci bari ci ñoom yàggul dara lu toll ci quatre cent quatre-vingts jëm cinq cent kenn xamul sax nu ñu toll ñàkk nañ seenu bakkan ci li nga xamante ni moom mooy géej gi ndaw ñooñu ko wax mooy ndaw ñi nga xamante ni tey xamuñu seen ëllëg ci lan la jëm amuñu perspective ñi ko wax nag tey mooy ñooñu nga xamante ni téeméer boo jël ci Sénégal ñoom ñooy juróom-ñaar fukk yi ñooñu ko wax nag tey mooy ci Sénégal téeméer boo jël ñoom ñooy juróom-benn fukk yi 70 pour cent de la population amuñu trent cinq ans waaye 60 pour cent amuñu 20 ans soo amee population bu mel noonu da ngaa war di wax ak ñoom da ngaa war di péncoo ak ñoom da ngaa war di waxtaan ak ñoom ñoom loolu rek la ñu wax ndax dégg ngeen leen ci seen message bi nga xamante ni moom la ñu yëngu ñuy naqarlu. di massawu ñi nga xamante ni yëpp ñàkk nañ ci seen bakkan di massawu ñi nga xamante ni ñàkk nañ ci seen alal ndaxte ay du yem ci bopp borom. loolu moo tax bu ñu tolloon ci jamono yu mel nii ku mel ni maam Abdou Aziz si radiyallahu an anhu doon wax wax ju am solo doon wax ne sa mbuus boo nekkee ci gaal gi bul ittewoo sa mbuus mucc ittewool gaal gi mucc bu gaal gi muccoo rek sa mbuus mi dina mucc te tey ji nag gaal googu nag moom moo tàngee tey. gaal googu moom moo nekk en eau trouble gaal googu moom moo nekk di questionné wu gaal googu moom moo nekk di di wër fi nga xamante ni foofu la war a teer mu nekk ci guddi yu doy ñu nekk ci guddi goo xamante ni bët setagul wax jot nag ndax xol yi fees na dell ndax wax naa ko ci sama njëlbeen bu doon benn nit rek moo faatu ëpp na li faatu nag dafa ëpp benn loolu moo tax mu tiis li faatu nag ay ndaw la ay ndaw yoo xamante ni defuñu lu dul doon wane seen naqar doon wane seen njàqare ci Sénégal bi nga xamante ni moom lañu bëgg ci Sénégal bi ñu digoon depuis juróom benn fukki at jaarale ko ci ay kuréel yoo xamante ni ñoom ci seen bopp lañu diggoon réew mi ba tey jii dafa des kuréel yooyu bokk na ci justice ci la bokk li nga xamante ni moom la digoon askanam ndax matal na ko ndax dimbali na ndax sunu justice dimbali na Sénégal ci ñu am un développement économique et social harmonieux basé sur la justice et sur l'équité beneen kuréel bi mooy assemblée nationale ndax assemblée nationale lim ñu diggoon depuis juróom benn fukki at ñu taxawal ko ndax loolu jur na ko ndax dimbale nañu tey ci yoonal yoon yoo xamante ni dina tax képp koo xamante ni soxla nga sa réew saa boo demee fekk ko fa waaw li ñu gis nag booba ba tey te mu jur njàqare mooy l'État es conçu comme un instrument d'enrichissement illicite et de règlement de compte loolu mooy la triste réalité mooy que ne l'État est perçu est conçu comme un instrument de d'enrichissement illicite et de règlement de compte ñi yor saa bu ñu fi nekkee bu ñu yoree ba pare ñoom dootuñu am soxla seen njaboot dootul am soxla waaye ñi yor bu ñu ñëwee dañuy gis ne li ñuy def mooy yëkkati justice instrumentaliser ko jël état ak ay ak ay jumtukaayam def ko li nga xamante ni moom mooy réglement de compte loolu nag jàpp naa ne mënatul woy ndax àdduna bi léegi dañoo egg ci benn conscience citoyenne bu ama am solo ndax li may wax rek mooy wax naa ko ci njëlbeen bi la la paix c'est pas l'absence de guerre c'est l'absence de justice c'est l'absence d'équité loolu moom moo na indi une paix sociale mais dafay nekk vérité ak réconciliation le mot n'est pas de trop on en a besoin fi mu ne nii on se regarde en chien de faïence ñoo ngi yee fitna ñoo ngi entretenir haine loolu yëpp mën naa ñàkk lii tax mu ñàkk mooy kenn ku ci nekk li nga war a def nga def ko ni nga ko war a defee kenn ku ci nekk rôle bi nga am nga joué ko ngir sa jëmmi sunu borom subhaanahu wa nga def ko te yàlla rek tax nga def ko ngir yërmande yërmande baat boobu dafa mel ni moo xaw a ñàkk ci relation bi nga xamante ni am nañu ko ay images yu triste la ñu gis ñoo xamante ni lu ñu def ci seen biir rek la ñu soxla ñoo xamante ni jàng rek lañu ñu ittewoo ñoo xamante ni fu ñu tëdd rek la ñu bëgg location sonal leen lool ñi jàng sonal leen lool. ñii fu ñu dugg ngir ñibbi seen kër sonal leen lool ñii fu ñu fajoo sonal leen lool am na ci loo xamante ni mënatul wëy nañu ko dakkal mooy mbas mi mënul di rey leneen di rey ñuy reyante sunu biir loolu mënut a président de la république Macky Sall gouvernement du Sénégal lii xew kenn raxuñu xam ngeen lii tax mu mën a dakk lii tax mu dakk mooy justice nekk une réalité luy tax mu dakk mooy yërmande nekk une réalité liy tax mu dakk mooy lu ngeen digle ngeen jiitu ci liy tax mu dëkk dakk mooy ñu wax dëgg waxante dëgg jëf dëgg dox ci dëgg wax dëgg te ñu bàyyi état bii nga xamante ni ak dañ koy instrumentaliser di ko utiliser depuis soixante ans plus de soixante ans comme un instrument d'enrichissement illicite et de règlement de compte ci mbas la ñu nekk àdduna bi yëpp tal leneen loolu lii ñuy dund image bu doy waar la ñuy renvoyé ci Afrique tey image bu ñaaw la ñu renvoyé ci li des ci àdduna bi ana réew moom ñu tudde woon réewu teraanga ana réew moomu nga xamante ni boo xalaataan ne yenn jëm yaa nga fa tëdd wala yenn jëmm yaa nga fa nekk yenn yi di nga ko rus a wax wala nga rus ko def ana réew moomu nga xamante ni dañ doon bakkoo suñuy père sunuy kilifa ana liggéey bi nga xamante ni moom la fi Thierno Souleymane Baal defoon ak Cheikh Abdoul Khadir Kane nan la ñu def liggéey bi nga xamante ni moom la fi El Hadj Omar Fouti yu def ak Maba Diakhou Ba nan la ñu def liggéey bi nga xamante ni moom la fi Cheikh Ahmadou Bamba bàyyi ak Seydi Hadji Malick si nan la ñu def liggéey bi nga xamante ni moom moo taxoon Omar Blondin Diop ñu jël bakkanam nan la ñu def liggéey bi nga xamante ni ñoom Mamadou jaa ak kilifa yooyu yëpp tey nga xamante ni seen itte moo doon Sénégal rayonné ci concert des nations liggéey boobu dañ ko tàmbali woon mu desoon lu bari dafa mel ni ñoo ngi koy salfaañee dafa mel ni dégguñu seen message dafa mel ni bàyyiwuñ leen xel foofu ñu tëdd na am loo xamante ni war nañ ko jombale suñu bopp war nañ ko rus suñu bopp président de la république su fekkee ne liñ la dénk conscience baa ngi fii ba tey jóg taxaw jot na def li nga war a def li nga war a def yow yaa ko gën a xam ñëpp li ngeen war a def yéen a ko gën a xam ñëpp njaboot nag kilifa bu nekk war na ëppale boppam sa njaboot saa buñ la soxlaa rek seen xel jël la kenn gisu leen kenn déggu leen te ñi ngeen yabal waxaguñoo nit ñi loo xamante ni mën nañ ko dégg ëpp na fii àdduna toll enjeu sécuritaire fii mu tollu ñuy wut ay bouc émissaire ak nuñ ko mën di tuddee jàpp naa ne ñu ni neen la kenn raxuñu waaye violence dafa bëri ay forme balaa muy fisik dafay symbolique yenn saa dafay verbal yenn saaye te loolu yëpp dañ koy gis de part et d'autre waaw lii yëpp mënoon nañ ko éviter artu nañ ba sonn wax nañ ba sonn ne nañu artu ndax ku artuwul di nga atte malheureusement artu ba doyul malheureusement gisoon nañ ko muy raam jëm ci ñag bi dugg na ci ñag bi nag waaye nañ fexe ba bu mu fi am kër nañ ko fexe génne te loolu mën nañ ko mën ngeen ko jóg jot na taxaw sëkk jot na li won nii faaw mu woon ni mënatul woy mën ay nit yuy faatu li tax nit ñi dootuñu faatu xam ngeen ko dangeen a jël ay nit jamono bi dugal leen ci kaso bi tëj leen te attewu leen leen tuuma rek ngeen jël tëj taqale leen ak seen njaboot taqale leen ak ñi ñu bëgg taqale leen ak ñooñu nga xamante ni dañoo jàpp ne ñooñu ñoo incarné seen espoir am na ci loo xam mënatul woy jot na sëkk ñu arrêté lii balaa muy egg ci situation bu irrécupérable jot na sëkk du xuppe moo koy lijjanti du menace moo koy lijjanti bul déglu ñooñu nga xamante ni dañ lay xamb déglul ñi nga xamante ni seen xool sell na seen xool sell na te Sénégal rek ñor leen dëgg rek ñor leen ñoo ñu déglu leen tijji sa xol nga tijji sa xel nga dilaté sa poitrine nangu ñu wax la loo xamante ni xëy na sax buggoo ko dégg waaye loolu la situation bi recommandé jamono bi pexe amul justice justice justice warul nekk un vain mot prophète yeeg seeni apôtre yi nga xamante ni yëpp yàlla wàcce na leen ci kaw suuf lenn rek la leen santoon mooy que la justice règne sur donc jóg leen balaa jóg di wees toog jot toog mënatul nekk jóg leen balaa jóg di wees ngeen def li ngeen war a def ngeen libérer les otages politiques ñu dellu seen kër pour que ñu mën a retrouver cette paix sociale pour que ñu mën a am une compétition loyale pour que ñu mën a demaat fi nga xamante ni foofu la ñu waroon a dem te jamono bi ñoo ngi accuser ñoo ngi accuser retard yu mag a mag a mag àdduna baa ngi dox réew yaa ngi dox ñun fi mu ne dañoo taxaw dañoo taggatémbe boole ci nekk ci guddi gu bët setagul ñu génn ci at mu metti génnaguñ ci sax waaye at mi ñu romb dafa tiis lool génn ci mbas mi nekk ci mbas mi waaye balaa mbas mi dañoo romb mbëkk mi mu metti lool waaye dañoo romb mbënd mi mu metti lool loolu yëpp mënuñu ko boole nag ak di rayante ci sunu biir loolu mënatul nekk jërëjëf